rahim waj al kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida wali yahab hidayatan yaxbituni fiha kasirun maakisan fi watani mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara tey jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi suñu kilifa gu baax gii nga xam moo daggee ay yitteem fële ca dëkk bu tedd ba di Touba Mbàkke ñëw gane suñu ci suñu dëkk bi di Touba Loro muy Serigne Cheikh Mbàkke ibnu Serigne Fallou bu Mbàkke ñu di ko dinag dinag di koo xam ni deesoyetu ko présenté maanaam di ko xamale kenn ci senegal muy loxol nday jooru Serigne Amsatu borom jaalibatul maraaxib mi nga xam ni li muy bay ci toolub Serigne Touba bi mboolem ñi mu ko bokkal ñëpp maase nañu ko seede mooy ñi bokk ak moom ci deret ak taalibe Sëriñ Tuubaa yi aju ci moom yépp ci yoonu murit waaye nag mboolem jullit ñi nekk ci biir réew mi yépp Sëriñ Cheikh waa Touba Loro ñu ngi am mbégte di la wax marhaban dalal ak jàmm ci suñu dëkk bi di am mbégte lool ci ñëw gi nga fi ñëw mooy loo xam ne ak yokkute la ci ñun ci suñu diine ak yokkute la ci ñun ci suñu wér ràggi xol yi nga xam ne day jàpp nit dañu koy saafaraal ak yokkute la ci ñun ci jaajuwaat ci ak sunu taalibe bi ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaara te di la tatagal di la jox nuyoo boobu nag ci turu imaam mi nga xam ni mooy imaam ratib sëriñ Abdoulahi Seck mi nga doon nuyoo léegi nga ni tey jii bu doon waxtu àjjuma wa naka ni lañ koy julli bu ñu noddee mooy jiit ci kanam ñun ñëpp na ci ginnaawam te moom it lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi ci taalibe ci njulit ci lislaam kenn du ko ci jiitu dana ko ànd ak nun ba mu jeex lu mu ci yëg fu ñu ci nekk rek danañu ca fekk mooy tàmbali kaamil yëpp mooy jàng xatma ko kon sëriñ Abdoulahi Ilimam yow sax yaa waroon a dalal sëriñ bi eh, maa ngi jox sëriñ bi ab nuyoo ci saw tur ak ci turu mbooleem jullit ñi nekk ci biir dëkk bi yëpp waaye naka noonu it di la jox ab nuyoo ci turu Baye Moudou Ndiaye Fall mi nga xam ni mooy jëwriñu sëriñ Touba fii ci Touba Loro ndax xam ngeen ni amut lenn loo xam ni suñ borom santaane na ko ñu war koo def te du am ku ko jiite àddina ak njiit ñoo ànd yeneen saa salaam moo gën ñëpp te yeneen te suñu woroom da ko wax ni ko toppal sama am Ibrahima roy aw yoonam kon loolu day tegtal te moo gën Ibrahima kon loolu day tegtal ne lu waay baax baax loo am am daraja jiit mënut tañaak ñàkk ñu ngi lay jox ab nuyoo ci turu Serigne Modou Ndiaye Fall waaye ci turu dëkk bi yëpp ak muriti dëkk bi yëpp ak jëw jëwriñi daara ji yëpp yëpp yëpp yëpp ak julli ci dëkk bi yëpp ak gox bi ndax tey waa dëkk bi rek teewuñu fi maa ngi profité ci occasion bi di la xamal ni daanaka mën nañu région région Louga bii ñu bari dëkk yu bari yoo xam ni ay taalibe nga fa aw nit bàyyi na fa ñëw ànd ak ñun bokk bis bii nga xam ni mooy mm, bisu euh, xasida fii ci Touba xam naa sëriñ Xaadim Fall mii nga xam ni moom li wolof naa lu njiit njàggata mooy njaag xam naa li mu ci mën a xam sax xaw ma ko ci ndax man am na ci ñoo xam ne sax mën naa wax ni ñu bari ci murid yoo fi ci sax xaw ma leen bu ñu dajoon ci àll daal jëmm ji laay xore xam ni kii ab murit la waaye sax du ma xam mën naa am xamante wun ci aw turoog yooyu am nañ it ñoo xam ne xamante nañ ci maa ngi nuyu léegi ko bokkoon nañ classe fukki ci ginnaaw gisewuñ muy ku ñuy wax sëriñ Maawo Jaw ca Touba Rite Jaw euh, sëriñ bi waa am nañ mbégte trop comme ni ma ko waxee woon daaw nga dellu siwaat ci nun ndax sëriñ Touba kat moo yaxanal ay xasida yoo xam ni lim ci jublu woon rek mooy kañ boromam waaye lim ci jublu woon rek mooy wane màggu boromam waaye lu mu ci jubluwoon rek mooy wane yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni sëriñ bi boo wax ni sama bëgg ci moom moo tax mënatuma bëgg dara ci kaw suuf euh, bi man bi xubbihi nasiitu layla wa zahaban wa fiddatan wa xayla yunsi fuaadi xubbuhu xubbal wara fa kayfa la wa minhuma xustu jara sëriñ Tuubaa nee na lépp lu newoon sama xol bëgg yeneen saa salaam raxas na ko ba mu set wecc mënatumaa bëgg kenn ku mu yenent bi sallallahu alayhi wa nee na it mënatumaa sonnal wala may jëfal lenn lu wuuteeg li mu bëggoon wala la mu newoon Moustapha laa liggéeyal ba mu jël ma def ma may ngën gi liggéey liggéeyaakoon mulkul alil baaxil xadim jaale nii asna xadim daa di wax nit defal naa yenent bi salaa loo xam ne nit tuuti ko tollanti ci kaw suuf loolu moom ci sëriñ bi rek laa mas a dégg ku ko wax farraxtuhu bi xidamin la saaniya lahu min al xidami laysat faaniya nee li ma defal yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam góor dootu ko tollanti mukk ci kaw suuf sëriñ bi nee na dem naa ba yeneen saa salaam tàllal loxoom laxasuma ni ma ma seedeel naa la ci sama kanamu borom yi ñi ma doon liggéeyal yow mii laa tànn jiital la ci loolu moo tax mu de bind bayitam wu rëy wooye mu ni mulkul alil baaxil xadim jaala nii asna asna xadim nee na yeneen saa salaam wax ma ni may sab liggéey nangu na sa jëf junet mel na ni jëf yenent sëriñ bi bind ko ni jëf yenent mus mënut a weesu ñett sëriñ Tuubaa koy wax nee na jëf yenent mënut a paase lu la yàlla digal nga def lu mu la tere nga ba te ko la topp nga digal ko loola Sëriñ Tuubaa nee na loolu laa defal yàlla loo tax mu ne woon sama jëf june mel na ni jëf yenent loolu la waxoon ni jihaad loolu la waxoon ni jihaad yan qadaa wa rabbi xabila wa huwa ka sa'i feneen mu ni jihaad yan qadaa wa rab wa rab jihaad yan wa wa bay'an rabiha ila kalbin nabaha mu ni sama sama sama liggéey sotti na am naa bénéfice xaj yi doon baw daañu baw keneen ku dut man booba nag baatu kël bu la jëfandikoo waaye ñi jàng bal ilmul balaaxa xam nañ ni bëggut a wax kël buy yor ñeenti tànk di di baw waaye mu ngi ci jublu ñi nga xam ni dañuy ŋàññi nitu diina ak di ŋàññi lislaam ak di leen gàllankoor sëriñ bi ni ñooñee day seen pexe ñu doon lal ñeneen ci lay jëm waaye noonu mucc nañ ci ndax sama jëf xas naa xas na xas na yéwén fi may tënk tuuti ji nag bu Touba a jàllee ci feeñal seen mbégte feeñal seen seen xol bu sedd feeñal seen seen seen seenu tuufu ci ci yoonu Serigne Touba ci dagg gi nga dagg sa yitte ñëw ci noonu dama koy tënk tuuti tuuti mbégte mi ci biir xasida yi ndax dañoo wax ni ne xasida Serigne Touba daa wax ci xasida yi yu yéeme zintul xasaida lil wahabi askuruhu biha wali saaxa maaxat faaxa masnuni dafa wax ni yaxanal naa ay xasida yoo xam ni sant saa borom képp laa ci jublu te loolu wax na koy wax ay waxin yu wuute te bari shakartuhu li annahu qad saaxani li watanin biha nafa maa aqani shakartuhu ala firaqi alxisaab wa jaaluhu kulliyati xayra ihtisaab sakartuhu wa xaadali abdala kama kafaani alxarba wal jidaala nga xam ne ay sakartuhu yu bari sëriñ bi nee na li ma jublu mooy sant yàlla nga xam ne damay dem ba nee na sama borom moo wax ak man ala lisaanil xaal ni ma ahmadu cant nga ma cant goo xam ni nit mënumaa dab naam waaye sa cant yëpp yëg naa ko ba def sama jëmm muy sa jëmm loo bëggati bëgg naa ko loo loola lu ma bëggit bëgg ko ko xam naa ne sama digg yow amut wóote loolu la waxoon ne chitu lazi cha al ilahu wal ilah yashau ma chitu bila durrin wala mu ni moon de sa saa borom seedeel na ma ni ma ak sama cant yëg na ko ci moom waaye taxut man ma mën a bàyyi ak cant fu ma tollati di sant saa borom xam xam naa ni sax mënumaa cant yàlla ba cant cant gu dab jëmam ja waaye kon fu ma toll rek mën naa ko jaajëf loola waral mu ne xibaatuka lii ayat sukuur ya fil kunhi laka alhamdu ya fardanta alayta an sibii xasida mi nag mu wax ni eh, ila tawalifi yaquudu laahu ashraara laa ilaha illa laahu loolu rek doy na sëkk ci xam ne sëriñ xasida sëriñ Tuubaa yi kenn munta nat ab demoo kem kemam wala fu mu toll wala darajaam ci kanam suñ borom nee na laa ilaha illa laa mi nga xam ni lépp lu baaxati cal ko suñ borom dëxañ Sëriñ Tuubaa nee na de mbootum laa ilaha illallah dëxañ naa ko ci sama biir xasida yi waaye am na feneen fu mu wax ni ñe doon jihaat ci yoonu yàlla seen deret yi ñu joxe woon ngir yàlla nga xam ne ñoo doon xeex xaybar di xeex xunayn di xeex badrin di xeex tabuk di xare-xare yi nga doon dégg di joxe seen di joxe seen deret di joxe seen alal ak seen njaboot ngir lislaam taxaw sëriñ bi nee na seen deret yooyee ñu doon joxe ngir yàlla nga xam ne ku ci faatu da ngaa sahit seen deret ya ak ndox mi ma bind sama daaj yi nee kiif kiif maa umida di la wax waxagut ba léegi xasida yi waaye ndox mi daaj yi bind xasida yi moom la wax ma umida di ka dima ishuhada kon xasida yi sëriñ Tuubaa yi fi mu toll ci ab jaam waxaat nit waj al tawalifi ilallahi ahab min gayriha yaa gayra malikin yuhab yaakaar naa ni ma nga ca tey sirul asir defal sama mbindum bopp muy mbind mi nga gën a fonk ci kaw suuf defal it sama dëkk bopp muy dëkk bi nga bi nga gën a fonk ci kaw suuf wa maskani al ahabba maskani fii ardina lakka walil mahisani ca xasid ak uh, uh, madlabul fawzayni kon Sëriñ Tuubaa lépp tànn la la mu waxoon ni li saa borom tànn ca la ma tànn li saa borom tànnaloon yeneen saa salaam ca la ma tànnaloon loolee xasidaam yi da cee bokk dem na ba ci biir xasida yi mu wax ni sax xasaidi min mujizatil muntaxa maanaam sama xasida yi bopp yi daa bokk ci eh, miracle yi nga xam ni kiiaw teef ak kéemaan teef yi nga kéemaan kéemaan yi nga xam ni yeneen saa salaam da ko indi woon ngir wedamal nit ñi nga xam ne gëmuñu ko woon sëriñ bi nee na sama xasida yi da cee bokk na fonk sama xasida yi ndax sama dafa mel ni sama yàpp yaram laa dagg jox leen loolu sëriñ Cheikh Khary Dieng mi nga xam ni moog waajuru sëriñ Bassirou Mbacke mii tey di waa di di di sëñ Mountakha mi di xalifa sëñ Cheikh Khary mi ko sëñ Tuubaa waxoon mooy najaayi lenqey mooy najaayi lenqey sëriñ Bassirou day mel ni waxtu wi xaw naa xat waaye fi may daane la kàddu gi mooy sëriñ Cheikh Khary Dieng keroog bi sëñ Modou Moussa ñëwee fekk sëriñ Tuubaa ci njaareem mu mel noonu mu mel delloo àjjana moom la sëriñ Muudu Moustapha yebal ci sëñ Basiru ni ko wool ma ko mu ñëw bi mu ñëwee tamit dégg na kàddu gi sëñ Muudu Moustapha wax sëñ Basiru mooy da ko wax ni ko ku tedd ki day tànn naa dëkkaaleeg boromam waaye jàngal ma xasida sàngam sëñ Muudu Moustapha loolu sëñ Basiru sëriñ Seex Jang xaacu sëñ Muudu Moustapha ni ko Seex Jang bañ ba leen sëñ Bàmba di yar taya taxoon sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Seex Xari Jang ne sëriñ Muudu Moustapha sa laaw Mbàkke xam naa ne li nga waxee dëgg ci man waaye xasida gi ngay jàngaloo sëñ Basiru ginnaaw bi nga ko tàggee sëriñ bu mag bi ba pare sëriñ bi ba nga ko bindee bu tooy xepp damaa ñëw ni ko jàpp ab loxo mu ni ma xay Seex Jeng sëriñ Seex Jeng damaa bëgg ngeen fonkal ma ko ndax daa mel ni sama yàpp yaram laa dagg jox leen jox ma xasida googu bi nga xam ne moom la woo na sëñ Basiru mu ñëw ñëw mu dégg sëñ Mudu Saa di ko wax mbokk Ahmad Tandax yi ni ko sëriñ bi laa tiim nii waaye tànn naa dëkkaale boromam mooy delloo na ca boromam ni ko jàngal ma xasida sàngam sëriñ Cheikh Jeng daal di xaaju li muy tegtale mooy xasida yi sëriñ bi lim ci lëm ci mbóot su ko waxtaanee ci jataay te sëriñ bi kilifa la ci dëkk yu sor yi la jóge yeneen mbooloot mën naa am ñu ngi koy xaar waaye sëriñ bi Touba Loro bëgg li ñu lay ñaan nag mooy li ñu nga xam ne moom la sëñ sëriñ ba siré siréloo ñaanoon sëriñ tubaa keroog ba mu ñëwee sànna dafa ne ko mbàkke sama digg ak sama borom lu ca gën ma war caa jot yaa ko xam sama digganteeg sama borom lu ci baaxut tañ war koo fekk yaa ko xam li gën ci man tañ war ko war koo ñoddi na ñëw ci man li bon ci man tañ ko tañ war koo fekk fegal ma ko jox naa la saa lépp doy loo naal ci lépp loo wax ma def loo ma tere terrain bàyyi loolu rek lañ lay wax Touba Loro gépp sëriñ Touba la ñuy déglu Touba Loro gépp ay jullit lañu Touba Loro yëpp lislaam lislaam la dund Touba Loro yëpp Rasulullah salaam mooy seen royuwaay sëriñ Touba nag ñi ko fi yaakaar ak ñi nga xam ne yaakaaruñu Sëriñ Tuubaa waaye julli dañoo xam ne foofu lu baax nekk ñu mën faa def seen bopp ñëpp tey seen gan nga ñëppit doy loo naan la tey ñëppit loo leen looloon lool foo leen fàkkal nu tëdd fa jox nañ la lépp te teewuñu dara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yaa mulhiman qad wafaqa salli ala man xuliqa wal xalqa faaqa xuluqa kal xalqi wal tusallimi yaa jaacilan xattiya fawqa zanni wa zanna xayri yaa azimal manni barkeb Cheikh Abdou mbokk yi noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Amsatu Mbakke moom Serigne Chouaïbou mu jaarale ko ci jëwrinam ji nga xam ne mataleen na ko liggéeyam ci lune ne ak ci fu ne di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moo ngi leen di nuyu di ci jiital mboole magi dëkk bi yépp ak imaam ak ñépp sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di di leen jot li santuk sëriñ bi ak ñaanu sëriñ bi ak soññëb sëriñ bi santub sëriñ bi nag nee na mi ngi koy jiital ci murit yi nga xam ne dañoo am yàqin gu wér ci ne kenn kum doon ci ñoom jumtuwaayu sëñ Tuubaa nga te ba nu doonee jumtuwaay ba noppi nu am yàqin gu wér ci ne jumtuwaay bu ci nekk war naa jëfal aji moom ja ca lam ko moomee yëg ne jëf ca leen gërëm te mooy jëfal borom Tuubaa ñu boole seeni pas-pas ak seeni yitte seenu jot lépp jëmale ko ci liggéeyu borom Tuubaa bi sëriñ bi nee na loolu moom ak cant la ci am ndax ku jamonoonteel ndonte wenn ñaanu suñ Tuubaa moo fireeku ci jamono ja nga jamononte ji doy na ci sëkk boo ca xamoon lami muy firi ak li ci ñaana ñaanu sëriñ bi li des ci sa dund gépp danga ko saxal ci sant borom Tuubaa ndax nit liggéeyalut yàlla lu tax mu jamononteeg ba bokk ci firig ñaanu sëriñ Tuubaa neena na it nag loolu la mu ko undee mooy booloo gii ngeen booloo ba taxawal lu mel nii nee na da koy bir ne sëriñ bi da koo ñaanoon boromam ne ko nang ma booleel samay murit te bu demee ba ab yàqkat mënta yàq nang ma defalal kaaraange goo xam ne lu yàq dootul mën a tàbbati ci ñoom loolu nag mooy lam waxoon ca wadduudu muy yàlla nang ma booleel sama murit yi yaa rabbi yaj'alil muridina mahan fii hisnika alhasini wasam laj maa nee na nag la ko gën a neex ca ca bun boole woo sax mooy ku nu dàq dañuy mën a soowoo fenn te bir nañu ne seen ànd googu yépp da da ngeen koo laxasee pas-pasu Sëriñ Tuubaa moo tax ku leen dàq ci sëriñ bi rek la leen di fekk te ku dàq nit wal ak loo mën a dàq ba mu tàbbi ci biirub sëriñ bi boo ko yëgee boo ko yëgut boo amem xel dëppal te xam ne li ngay dàq moom raw na ndax sëriñ bi lu tàbbi ci moom raw ndax daa wax ne nafsi wa diini summa ahli walwalat wa maskani lakka wa diatun abad lañ ci mujjee dane fa hakaza dunyaaya maa uxraaya fa fihima an isrif rasaya wasrif azab annaari an jumlati man bi yataallaqu min abnai saman jumlatin iqwaani min aqaaribi fi tiini aw fi diini wal ajanibi nee na it nag loolu lay sante sëriñ bi waaye di ci jiital sëriñ Xaarim Fall mii nga xam ne moo sëriñ Modou Fall euh, di ay ndaw waaye li ko ci gën a neex mooy bi mu dikkee ci jotaay bi dafay fekki mag xolam gën a sedd ci xam ne ñoom ñii kat li ñuy ndaw mën na noo jëflanteeg mag ñi ba buñ toogee mag ñi mën a toog ci seenu wet nee na luñ mënoon a nekk lu mu baax baax bu ñëwoon fekk leen ci ñoom ñuy ay gone képp dana ci am ak jiix jaaxa ndax danaan ndax ndaw ñi danoo mënta jëflanteeg mag ñi ci dëkk bi waaye nee na loolee dindil ngéen ko ko te it loola sant na ci seriñ bi bu baax nee na mi ngi leen ciy sant bu baax ak mboolem ñi ngeen ko àndal rawatina murit yi nga xam ne bàyyeekoo nan fu ne Eh, ñëw ànd ak yéen bis bi nee na ñaan gi nag ñaan la goo xam ne murit bu ne war naa doon ak yitteem ndax lu dut loola nit mën naa xëy am ko te gëmut sëñ Tuubaa nit mën naa xëy am ko te gëmut sax yàlla waaye li nga xam ne ab saay saay mënu koo am te du ko am ba mukk ba mukk mukk mukk nee na moom la leen di ñaanal te muy ngërëmal borom Tuuba kàddu soññee yi nag mooy yëg gi nu yëg ne sant sëriñ bi war nañu ci waxtu wu jot jamono ju jot ak ci saa su ndax moom sëriñ bi kat daa digle ak sant wane ak cant ba noppi joxoñ ak cant ba tax mu wax ne ci ak cant la ma saa borom defalee loo xam ne mosu koo defal ku jiitu mosu koo defal ku mujj ndax mënul mësunoo dégg benn borom xam-xam bu wax ne diw sàngam bind na ne jundullahil xaalibiin am na wenn yitte ju fa nekk judut naka la ñuy def ba mission bi yàlla teg malaayika yi ñu mën koo ñu mën ko ñu mën koo jàllale jibril la ko war naka la koy defee mikail la ko war naka la koy defee ashrail noonu asrail noonu ba ñoom ñëpp mat ñoom ñooy féete ca jundullahil xaalibi nee na nag gannaaw ba benn borom xam-xam bu jiitu mësta wax leneen lu ñuy def ca jundullahil xaalibiin sëriñ bi ne moom sama sant moom yegg na ci sax waa jundullahil xaalibiin di ma sant la ñu amee ba ya bay mujj gi sax sant gi may sant sant gi ma yàlla di sant waa jundullaahi bi ñooy laaj yàlla nan ko kii ngay sant kan la ban dem siyaare ji ko chakartani inda jamii jundihi raamu siyaarati mahan min hindihi nee nañ nag sant yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxal ba wax ne wajjahtu kulliya bi xam hamdin wa sukur ila waliyil muminina wa sakur nee na mujj mu koy santee ci santin wu ci ba mujj gi sax mu ne ko dangaa waxoon ku sant nga dollil ko damay far sax sax ci ak sant ba mujj naan ko est que du ma nekk sax ab cantaakon ba yàlla xamal ne ko yow rekk yaa war a sant ndax la jar sant lépp yaa ko yor moo tax mu ne ko rum naa sukuural lisi bil keefi wa nuuni maa shaa yafaalu min baadin wa maknuni kooku it nag nga xam sant na ko fu ko kenn mës sant te mooy wax ne sakartu rabbiya waaye wa rabbiya sakar kulliyati wa inda jundihi sakar moom it daa wax ne lam ca wuutee gaa yëpp mooy la baax la ko yàlla defal la gën la ko yàlla jox la gaa ya doon wut te mënuñu koo am la teg ci ay loxoom ba noppi ne ko ku ko bëggati na ñëw ci yow sukk jébbalu nga mën ko koo jox bu ko defut na taxaw fële te xam ne nii ma la def dootuma ci am beneen numéro 2 mënta am mu ne ko bindal mu ne ko radda li allahu lasi qad fata min al xuyuri waaye wa misali fata exemplaire bu mel ne man moom mësatut am te dootut am te adduna du doxati ba mu am kon sëriñ bi wane na moom fa mu ca féete bëgg googu nag mu bëggoon yàlla ba tax mu ko doon santee ci santin wu ne di ko ñaanee ci ñaanin wu te it nag xam ngeen ne xasida yii sëriñ bi daa wax ne digganteem ak boroomam la dem ba ci yàgg sax ak seey ci digganteem ak boroomam am boroomam ne ko bëgguma mbir yi jeex ndax ci man la mbir yi di yam dama bëgg nga aneeraat kaset bi tuuti jaaraat fële mën a doxaat ñëw ci man ma xool ni ngay daagoo ba yegg si ci man ndax xam ngeen ne daa wax ne dallani allahu ala llaahi bila taxaruri wa taqab balaa yàlla damaa tegtal jëmmi boppam ja te aw ma ca goro te sama lépp da koo nangu bi mu yegsee ba ci yàlla yàlla xamal ko ne ko li yegsi ci man mënatoo am foo jàllati damaa bëgg ni ngay daagoo di ñëw ci man daa neex te bëgguma mu gaaw a jeex damaa bëgg nga delluwaat dan dallani allahu ala muhammadin waaye ba mu yeggee nag waxaadani muhammadin li samadi nee na it nag loolu ci ak anam la ko defee bëgg gi mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ci biir bëgg gi bëgg yàlla moo tax mu wax ne bi ma yàlla tegtalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damaa ñëw ci moom ne ko antal karimu mu ne ma waaw yow a kan ma ne ko annal xadiimu foo bàyyi ko yonent bi xam na xadiim ndax raama rasulillahi min ilahi kawni xadiimahu wa abdillahi yonent bi bindi yàlla ne ko dama bëgg kii doon abdullahi doon xadiimu rasul ndax li nga bëgg moo ko mën moo tax ba mu ne ko annal xadiimu dane ko noo koy defee mu ne ko dëxëran uddimu fii ka kon yonent bi xam na ki doon sàkku waaye bañ ko ko waxee ne ko dëhëran uddi mu nag dëhëran gi moo diis moo moo jaaxaloon yonent bi salaay salaam ndax miin nañ ci yonent bi ñu ko yàgg liggéeyal ñu ko bëgg ba da ba am daraja ju nekk ci yàlla ñoom ñëpp daanañ ko làq waaye li leen ci jëmmaloon mooy daraja ji Sëñ war a amee moo tax yonent bi laaj Sëñ Tuubaa ne ko dëhëran mu goog nga wax moom nan nga ko mën a defee ba mu sotti mu ne ko ci ñaari anam yii laa koy muy salaatu sitta bi madaxi sitta taatihi batta maati sey année bi fukki weer la ak ñaar dama koy xaaj ci digg juróom benn weer yi dama lay tagg juróom benn weer yi damay julli ci yow daan mel ne yonent bi da koy laaj ne ko ndax da ngay def juróom benn weer yoo sentir julli ci man yoo sentir tagg ma mu ne ko déedéet dama koy teg ci programme xaalal la si madaxtu min rësil xurum li saadi si suhuri waxoo man karum ñu ne ko kañ nga koy julli ci moom mu ne min rajabin ilantiha sil xijja lahu wa salawatun xujja loolu nag ba mu ko defee yàlla dana ko takkaay danaa ci participer ndax du nu la neex nga koy defee damaa bëgg ni ngay taggee yonent bi man yàlla maay dàkk ni ma bëggee nga koy taggee nga koy taggee noonu daan ko nag bëgguma nga tagg ko taggin woo xam ne loolu lépp yàlla tenk tenkalub sëñ Tuubaa bi ngir xam ne dana yegg si ci waat ci moom waaye bëgg yoon wi di muy xool ni sëñ Tuubaa di doxee moo ko neex nee na mu ne ko tagg gi doo ko teg ci sa bakkanu bopp ndoonte sëriñ bi mësta jëfandikoo bakkanam waaye daf ne ko dama bëgg at mu jot mu ne nga fental yonent bi way yu bees tàq taggin wu bees taq te jox ko ko hadiya ndax yaa ne ko ala lasi madaxtu min rasil xurub li sadisi suhuri wahu man karum mu ne ko nu ma koy taggee mu ne ko man daal wax naa la ko yaay xool noo ko bëgg a taggee mu ne waaw nangu naa ñu ne ko nooy loo nangoon teeg yàlla mu ne ko dama ne ko ala man alayya wala sutu sadih waaye lahu kulla amin nag kulla amin hadaya madih at mu jot mu nekk am nga fi am nga fi addiya tagg yu bees tàq lay doon loolu nag yegg na ci moom ba yàlla ci bëgg gi mu bëgg sëriñ bi moo tax sëriñ bi ku mu bëgg yàllaay tax mu lay bëgg moo tax yonent bi lu mu ko mës a fekk ci biir tagg gi ba jox ko ko sëriñ bi ku ko gën a jege mu jox la ko ndax da daan wax ne ku jëm ci yàlla leneen loo bëgg lu dul yàlla loolu dox sa digganteeg yàlla moo tax daraja ju nekk yonent bi fekkee na ko ko ngir tagg gi mu koy tagg ak julli gi muy julli ci moom te waaye saa bu wëlbatikoo gis kenn mu mu baaxee ko ko ngir ne moom kenn rek la bëgg te bëggu dara dox ci digganteem loolu nag bi mu ci nekkee moom sëriñ bi dox ca liggéey bu yaatu boo xam ne mësta kenn mësta xalaat doxin wu ni mel kenn mësta gisit doxin wu ni mel kenn mësta gisit jëfin wu ni mel moom sëriñ bi ni mu doon taggee yonent bi salaay salaam ci di ko julli ci di julli ci moom te li gën a yéeme ci julli gi muy julli ci yonent bi waaye wala tagg gi muy tagg yonent bi sallallahu wa sallam day làmboo mbooleem lu mën a may nit daraje yi suñ borom subhanahu wa taala ngërëmam la koy may lépp day dajale ci biir tagg googu muy tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga jël xasida gu mel ne sëñ baa daane yonent bi maa ne la woon kullaha min hadaya madiyah arut nag dañoo am seeni ay buxuur fukki baxru la ak juróom benn tey nag damaa bëgg nga génn ci règlement boobu kéréel ma loo xam ne tey nga koy créer ki ngay tagg tagg ko ci la ilaha illallah muy 166 bul tudd aw turam aw turam bu ci dikkee lu toll ne tarfatalaa ni ma dee garaatal li nga lëgoo jotoon a liggéey danaa ko yàq te dootoo bokkati sëriñ bi tàmbali bismil ilahi yan muuluhaa'i bila manaahi wala intihaa'i hamdan li rabbi xayral murabbi qad ramma qalbi bil ihtidaa'i waaye la ko sant gimi muy sant boromam ci biir loola ngay dégg mu naan lahu sukuuri bila kufuuri wa huwa nasiru minhu fidaa'i la ko waral mooy ak tagg la muy xasid ak mawaahibu naafi'a waaye ismullahi la ko tiggee muy laa ilaha illa ba noppi nag di may ngërëmal yàlla lu bokkut ak tagg gi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi waaye nga gis na mi na na nam ko nam nam nam ko cee taggee nga xam ne ci ci biir xasida gi rek booy déglu day mel ne yonent bi da doon baagante di dem ak a ñëw ndax day toll fu mu naan ko anta antal karimu antal eh, annal xadimu bu dem ba ci biir mu naan ko lahu tiiraa bii mel na yonent bi nekkatu fi yeggee ko mu naan huwa dem ba ci yàgg sax mu naan ko lakka kon day mel ne yonent bi ci dem ak dikk ci kanamu Sëñ Tuubaa la dundee moom ba ma xasi dem nga woy bu naa fi jeex naan ko yow naan kookee naan kële kooku moom ba xasi gi jeex waaye li ci gën a yéeme mooy mbooleem ku yàlla mës a dig lum la neexalee jiital ci mbooleem xulafaa u rasidiin ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax nga ne sëñ Tuubaa tudd gim la tudd ci xasida ak mawaahibu moo tax nga jot cala yàlla diggoon diggaleen yàlla diggoon ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom yi ndax sëriñ bi daa wax ci muqaddimatul am baax ne ayaa qaadimal muxtaari laa tansa sahbahu fa man yansahum fal mathum mathun muqattaw waaye bi mu see ci Mawaahibu Naafi' xam ni mënta ñàkk bañ a tudd saxaaba yi te yàlla neewoon na ko bu ci tudd turu kenn koo ci tudd ma dee garaate la te ñoom ak tagg mënu cee ñàkk bañ a tudd mu tàmbali nag alal atiqi baabi tariqi aqil wusuqi kullu riday nee na xam nga Aboubacar joxe lam yore woon lépp ba seetu dara moom ngir xam ne mooy alal atiqi moom nee na bi mu ko tuddee ba noppi Omar ne ko man de yëg naa Aboubacar am daraja joo xam ne ni nga ko amee ci bi ko tuddee te man it andi naa ngir feelu yonent bi dama bëgg nga tudd ma ni ko tuddee mu ne ko xalal wasiiri sayfil basiiri ridal mujjiri mujjiri xadeey moom it mu def nam defoon Ousmane mu ne ko xalal diyaa yi aqil xayaa yi xayru ridaa yi min sil baqaay on ali ñëw mu ne ko alal xaribi lay sil xurubi riddal mujji mahati xaay nee na sahaba yëpp mujj ñëw mu ne leen ala sahaba sawil ijaba yowmal kaaba ridda sanaa yi waaye li gën a yéeme mooy nihma rijaalu mbooleem koo mës a dégg ñu ne la am na tomb ci yàlla ba noppi mën a taxaw opposé wu ne bokkut ci alali Sëñ Tuubaa baaxut ci yàlla waaye yàlla lu mu la jox na ko Sëñ Tuubaa waaw jërëjëf waay mbooleem kuñ la ko baax ak fu mu mën a baaxee toogutu njaboot ne leen ci alali Sëñ Tuubaa laa bokk adduna la baax waaye baaxut ci yàlla waaye yàlla lu mu baax la jox na ko suñ tubaa te dootu ko nangu ataytani jamia duuna salabi wali taqudu suu la waxta talabi waaye nee na yëmu caag man daa yegg ak man fu kenn mës a yegg di yëkkati ay mbuboom man moom yàlla di ma jox bi ma bi ma bi ma raafalee li ma yonent bi war a jox lépp ba ma ba ba ba ma sol ko ci sama poos jox taalibe bu ma gën a jege ta loolee mooy lam ko wax ne ko waxaada di muhammadin li samadi nee na ba yeggee ak nub wala dese yàlla ne ko nub wa gii nga dese nag te nee nga jeexal nga damaa bëgg nga àndaat ak moom muy ànduk ñaareel gi mooy ala dalani dalani allahu ala xayril wara waaye waxaada ni xayril wara lisil wara nee na bi mu yeggee moom foofu yonent bi salaay salaam nag nee na sëriñ bi dana yonent bi bàyyi ma kii jeexal nga fayal ma ko nee na ana fu yonent bi yegg ak yàlla yàlla dana yonent bi te xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon naa ko fii daaw muy diggante xaadim ak xadiim anas mi ñuy wax naan moo njëkk a tudd xaadim kaadim la tudd anas xaadim la tudd xaadim nag ismu faa'il la moo moomee bu bëggee wàcc mën naa wàcc bu ko liggéey bi arrangé tut mën naa démissionné bu xiifee day lekk bu maree day naan te xaadim li muy defal njaatigéem njaatigéem mënal na ko boppam waaye Sëñ Tuubaa nag li mu wutee ñëpp mooy xadiim la xadim nag mooy ki nga xam ne li muy defal njaatigéem njaatigéem mënalu ko boppam te mënu ko ñàkk te njaatigéem te te xadim moomu bu duggee ci liggéey bi sañatu ta dëpp bu sonnee sañatu ta noppalu bu xiifee sañu ta lekk bu maree sañu ta naan te li muy defal njaatigéem njaatigéem mënu ko boppam te mënu koo ñàkk moo tax sëriñ bi de la yonent bi jàppoon ne ñaana ko ciy jotale ndeke ma takk sama ndigg liggéeyal ko mooy tax mu jot ci la yonent bi doon ñaan bi mu demee bay génn àdduna daa wax jullit ñi de bu ngeen déggatee ak nodd na ngeen ma ñaanal maqaaman mahmuda mooy ñaan gi ni ñaan ci bu daanalee ak nodd allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الفضيلة والوسيلة وبعثهم اللهم المقام محمود والدرجة الرفيعة wa Tuubaa nag nee na li yonent bi jàppoon ne ñaana ko cay jotale ndeke ma takk sama ndigg liggéey mooy tax mu jot ca ndax yàlla da koy jaay te mënalu la liggéeyal boppam mu saamu ci yàlla ngir ma liggéeyal ko wa inna min cheyin illaa indana xasayinu wa maa nunazzilu illaa bi yàlla la waaye daa wuuteeg wa anna al fadla bi yadillahi yuti man yasaa wallahu su fadlil azim nekkee foofu ak yàlla ak yonent bi yonent bi yàlla dana yonent bi toogal fi fii nga nekk ma atteel ma jaam ñi man yàlla sakkoon naa nguur goo xam ne jàpp ma woon ne danaa ko nguuru ma ànd ak sa waa ji dem nguuru ji ko nee na moo yàlla biñ ne wurëj woon ginnaaw yonent bi fi ko yàlla bàyyi daa gis ñu bind ca maqaaman mahmuuda sëñ bay jaxate yuuxu ne ko Mbàkke xanaa kon sant la yàlla ak yonent bee ci jiitu kii yaa tax mu am man maqaaman mahmuda kii yaa tax sant gim eh, yàlla nguuroom gam waroon a nguuru kii moo tax mu nguuru ko mu ne ko Ababacar ah, Jaxate mu ne ko Mbàkke mu ne ko ëllëg xam nga li ñuy wax géwal sëñ bay na tekk mu ne ko ab géwal mooy ki xam say teraanga di ko wax sañu koo bañu koo wax fenn dina ko wax ba ñëpp di ko dégg daan ne ko ëllëg yowmal am nag yàlla ak yonent bee koy doon ci man bu yàlla atee jaam ñëpp ban ban dem yàlla ak yonent bee wër ajjana yi di leen wër ne leen ahmadu mi mooy ku mës ta def lu ko astaghfirullah fekkee sëñ bay jaxate jël xalimaam ne ko yàllaa ngi naan la jërëjëf yonen ba naan la jërëjëf sëriñ si naan la jërëjëf ndax ndam yëpp yaa ko jël ku yàlla far di sab géwal yonen ba far di sab géwal sëriñ si far di say géwal ku la way du la soxal ndax ku la way gis ku la way ku la gis ku la way ku yabu noppi baa way ngir am nga tànni fi géwal nee na nag bi mu yeggeeg yàlla ci nguuram googu te mooy yaa maalikal mulki lii wasaata duuna jawan fil mulki wal malakuuti dëhra yallaahu yàlla dane ko bis ni ki tey maag yow bokk nguur gi waaye yow ma ci ëpp sañ-sañ ndax lu la neex defal tabul taggu kenn taman bala maa def dara taggu la mu ne yaquudu nii wala yaquudu min nii illa li man siitu bi isni min nii nee na ba mu ca yeggee nag yàlla nee na doxin woowu ma daan dox di yegsi ci moom da koo neex te yegsi waat naa ci moom te amul fu ma mën a jaarelaat faaw mu créer leneen nee na la yàlla kere mooy damaa dugal ci néegu boppam génne batan boppam di génne ay yéreem daan ma Ahmadou ma wuyu ko mu ne ma xoolal yére bi ma xool yére bi mu ne ma yére bii mooy yére loo wax mu am kenn mus koo sol ku ko sol ëpp na la daan ne ko solal nee na sëriñ bi sol yére bi mel ne moom la ko téyeer bi ñawal nee na mu ne la sumi yàlla ne ko bul summi daa rafet dalaa jàpp bul sumi nee na bi ne ne rëj war a war a ginnaaw yàlla ne ko ba ma la ko joxee laa la ko may waaye yow Ahmadu ni ngay ñaanee daa neex ñaan ma lii ma la may mu ne ko wahabali min ka sulan faaqa masalati falaka sukriya yaa wahabu yàllaahu yàlla génn meneen mbubu ne ko muy mbubum kun fa yakun kenn mosu sol solal sëriñ bi sol mbub mi yam ci moom mu nar a ko may naa la ko a dem mu ne ko ñaan ma ko ni ngay ñaanee daa neex mu ne ko yaquudu nii kun fa yakunu haaji min ka bila haqdin wala tahaaji yàlla mi mooy jiitu gi ma mu nar a sumi ne ko may naa ko mu nar a dem mu ne ko ñaan ma may mu ne ko antal muqaddimu qaddim nii huna wa xadan halaka kathirin min al axyaari yallaahu nee na mboolem mbiri yàlla yëpp yàlla mujj jox ko ko ni ko ahmadu sama digganteeg yow desalanteegu ma ci dara waaye nag ne ko am nga ci laissez-passer mooy lu ma la may lu ne lu ma la may lu ne fag ma ko ñaanee falaa koy tappe tappe goo xam ne duma ko ci nayal man yàlla ci may googu waaye dama koy tappe ca tappe ga ba noppi sa taalibe bu wëlbati ko di jàng foofee nga ko bindoon ma koy defalee noonu moo tax mu ne isaa katabtu aw xaraxtu xarfaa xustu munan tuudahu saakal xarfa lu ko fay jëlee mooy liyal bu saaratin xorofi turra kon sëñ bi soññee bi nee na nañu gën a lu ci xasida yi te xam ne lu xel di daj wala bët di ci tege wala nit di ko yaakaaru sëñ Tuubaa defal na ko ci xasida yi te nee na bu ñu songantee xasida yi liñ bëgg ci sëñ Tuubaa mën nañ ko am wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu na ñëpp tàllal sëriñ bi de ijaada rabbi min nawaari